jërë jëf mbokki euh, téléspectateurs yi bàyyi xel seen télévision Lamfal TV nuyuwaat nañ leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun di leen wax dal leen ak jàmm ci xibaar yi màggal gi di xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di Touba. xibaar tey dañ koy dooreek euh, ubbiteeg quatrième édition colloque international sur le soufisme ñu ubbi ci alxamis ji dëppook benn fan ci octobre atum 2020 fii ci Touba Mbacké mu nekk colloque boo xam ne tànn nañ ci thème bu am solo muy xidma ak ndimbalante naka lañ ci mën a def ngir mu mën a nekk loo xamante ni dana jàppale askan wi ci njeexantalu li nga xam ne moo di Covid 19 ci ubbite gi nag sëriñ Ahmadou Badawi teewoon na fa di jiitu Rawdu Rayaahin ak sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo jiite commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. ci noone ki nga xam ne moom moo di sëriñ Mbacké Niang taataan nañ moom ci moom ay kàddu yoo xam ne ñëwaat na ci solos bi ñu teewlu ko. jërëjëf euh, may leen ñu nuyu euh, ñi leen di topp di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi di ñaan yàlla tamit yàlla eggale nañu ci bis bi ci jàmm ak salaam ñu defe ko ni ko borom bëggee woon waaw ni ñu ni ko xamee rek euh, lii ndajale moo xamante ni ñetti at yu nekk lañ koy amal mu jëm ci wàllu ngirum sufiyanke di li nga xam ne moom la Serigne Touba doon dund di ci yar taalibe yi Euh, ren nag yàlla dogal mu dajeek euh, mbas mi euh, ci àdduna bi yëpp senegal mucc ci moom it ba tax na ndaje muy ñu di ko def ci anam boo xam ne dafay wuuteek anam yi ñu ko daa defee di jëfandikoo jumtukaay yu xarale yi tem tomb bi nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaane nag mu ngi jëm ci xidma xidma mooy def te yàlla tax ngir saw askan mu doon loo xamante ni donte Serigne Touba indiwu ko fii waaye gën na ko jox gëdd ndax da ko dugal ci aw yarinam euh, euh, xidma mook def lu baax nekk ay jumtukaay ngir ngir saafara li juddoo ci mbas mi ci ay loraanga ci anam yëpp boroom xam-xam yi ñu ngi wax ne fu mu nekk nii incha allah bu mbas mi jàllee ay loraanga yu bare bari ci fànn yëpp dana ci feeñ. dundin wi dana am ak soppeeku wàllu koom mi dana ci jeexital wàllu dundinu diine ji yëg ak wàllu aada ak cosaan yu yëpp dana ci jeexital su ko defee thème boobu nag moom lañ indi tey ren di ko weccante xalaat ak i borom xam-xam yu mag a mag yu jóge ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, lu toll ci fukki réew ak ñaar boo ci doolee Sénégal muy fukki réew ak ñett yoo xam ne ñooy séq euh, jotaay bi gis ngeen ko nii fu mu nekk nii tàmbali nañ ko Euh, mën nañoo tudd ci réew yooyu France Angleterre Belgique mën nañ cee tudd tamit réewi arab yu bare ay Maroc Tunisie euh, Jordanie Irak Syrie moritani ak yeneen yu dul yooyu ak Sénégal réew yu bare bare daal ñoo ko seq ak Arabie Saoudite yooyu nag ñoo ci weccante xalaat ak li ñu tënkee ci waxtaan wi yëpp nga xam ne buñ ci jógee incha allah danañ ko jébbal kilifa yi ca ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. mu nekkoon kàddu yi Serigne Mbacké Niang di kenn ci ñi nga xam ne ñoo yor liggéeyub euh, li nga xam ne moo jëm ci euh, quatrième édition colloque international sur le soufisme. jeneen jëwrin euh, joo xam ne ñëw na ci dëkk bu sell bi di tubaa ci nemmeeku moo di jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér gi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr. ñëwoon nag doon nemmeeku liggéey bi nga xam ne moom lañ taxawal fii ci Touba ci wàllu wér-gu-yaram fan lañ ci toll ak euh, wàccaayu màggal gi euh, mu ginnaaw bu mu nemmeekoo liggéey boobu gisee nag Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides waaye rafetluwaat bu baax a baax taxawaayub sëriñ bi mu jëmee ci matuwaay yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy respecté bu baax a ak masque yi nga xam ne ñu ngi koy sol ñu ànd teewlu kàdduy euh, Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw nemmeeku gi nga xam ne amal na ko ci dëkk bu seel bi di Touba ak matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko remercier la presse parce que xeex bi ñu xeex ba yegg fi ñu yegg bu ñu si àndul woon ak euh, presse bi ñoom aussi ñu jàpp si de la manière lapp plus citoyenne mën na am ba danañu ko donc gagné mais peut-être que euh, dana gën a metti mais euh, population yi nekk si seen kër yi di leen di yóbbul information yi ba ñu jot ko ñu nekk seen néeg yi di leen di yóbbul information ba ñu jot ko loolu collaboration entre ministère de la santé dispositif sanitaire bi ak la presse sénégalaise donc loolu laa bëggoon commencer d'abord bu ma waxee ba pare ma ne damaa ñëw tey fii ci euh, Touba pour euh, xool déjà li ñu fi teg pour préparer màggal bi si wàllu wér yaram est-ce que lépp mat na euh, ñëw naa xool naa def naa le tour wax dëgg yàlla am naa donc xel bu dal que dana ñu dem si màggal bi si environnement wu contexte pandémie si ni mu gën a rafet parce que déjà njàngal mu njëkk bi mooy bu ma xalif bi recevoir ku tedd gi bu mu génnee déjà laa ne wax dëgg yàlla joxe na leçon Sénégal parce que na mu génnee ak respect mesure barrière na mu ko defee nekk na lu rafet noo xamante ne bu si ñëpp royee rek incha allah danañu dem si màggal bi dans les meilleures conditions mais aussi euh, profité naa si occasion bi pour euh, dem seeti hôpital bu bees bi xamante ne mois de mars incha allah danañu ko livré mais aussi xool naa ndax euh, personnel bi mat na am na 5000 agents yoo xamante ne dañ leen donc mobiliser pour que donc ñu jàppale ñu si màggal bi ba kenn du am problème boo xamante ne am nga ko si wàllu santé action sociale te ñu la mën a taxaw service d'hygiène tam xam ngeen ne président de la république daf leen jox ay moyens yu bees yu moderne yoo xamante ne mi ngi fi yooyu yëpp déployé nañ ko si màggal bi sans compter maintenant lépp lu ñu si def si wàllu garab si wàllu ambulance si wàllu beneen xeetu jumtukaay yoo xamante ne dañ koy laaj pour que pèlerins yi nekk dans les meilleures li ma mën a wax daal mooy que ne alhamdulilah te léegi ma porte parole recevoir itam génn na si waxtaan bi ne ñun dañoo taxaw pour gunge pèlerin bu nekk si màggalam képp koo xamante ne ñëw nga fi nga mën a dellu fa nga jóge woon dans les meilleures et de santé. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi màggal gi bokk na ci kilifa yi nga xam ne dañuy ñëw wala taalibe yi di ziare si Cheikh Maodul Mountakha Mbacké Bachir bokk na ci ñoom kenn ci taalibeem di Omar Sow nekk éleveur nekk kilifa gu mag ci réew mi ñu dénk wàllum urbanisme. mu ñëw nag doon ziare sëñ bi indi fi nag lu toll ci euh, téeméeri nag ak juróom-benn fukk ginnaaw bu mu indee ci ndorteel safar gi rek lu toll ci juróom fukki nag yoo xam ne séddale na ko ci euh, dëkk bi euh, ceeb diwlin vermicelle diwlin ak yeneen yoo xam ne daf ci aajo te taalibe di ko yittewoo ba ci ndox mu jébal ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir ci ni nga xam ne noonu la koy defee màggal gu nekk ak màggalu ko xaan loolee rek di wane yam mu jëmee ci yoon wi ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne taataan nañ ko ci ñoom ginnaaw ñu ziaree sëriñ bi bokk na ci li ñu indi euh, liy nekk sama ginaaw ceeb la muy euh, ñaari ñaari dix tonnes ça fait vingt tonnes ça fait quatre cent quatre deri sacs de riz euh, quatre cent sacs de ak dix tonnes sympa bu ñu duggee ci biir dinaa la ko woon ça fait six cent sacs de six cent sacs de indi nañ ko fi indi nañ fi aussi ci wàllu ndox. presque indi nañ fi vingt et mille bouteilles d'eau vingt et mille bouteilles doo indi nañ ko fi te am na benn camion boo xamante ni nii actuellement mu ngi ci autoroute bi di ñëw dafa paan mais moom tamit ndox la dafa fees dell waaw bokk na ci tamit mhm. ah li nga xamante ni nii mooy euh, gel antiseptique yi ndax xam nga solo les normes de l'État euh, on doit respecter mhm. n'est-ce pas Euh, les dispositifs yi nga xamante ni nii moom la ñuy jël vis-à-vis du coronavirus moo tax euh, indi nañu euh, six cent six cent bouteilles six cent bouteilles yoo xamante ne nii yëpp gel antiseptique la ak ak ak ak waaw indi nañ ko fi indi nañ fi tamit lu jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu pack d'eau yi wax naa ko carton d'huile yi indi nañ fi presque soixante cartons 60 cartons d'huile indi nañ ko fi indi nañ fi aussi riz sympa bi ma lay wax hmm? yu cinq kilos yi ah indi nañ ci 10 tonnes ça fait 200 sacs ak 400 sacs yi ça fait 600 sacs boisson miso bi aussi indi nañ ci aussi 300 300 sacs 300 caisses. nag yi euh, boo ko xaymaa 150 nag la euh, am na ñetti yu mag yoo xamante ni ay gusera lañu mooy ay nagu Brésil. ñett yooyu boo ko taftalee taftalee ci lii day nekk cent cinquante nag. cent cinquante nag waaw. Mhm. mbokki téléspectateurs yi lii mooy liñ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci dëkk bu sell bi di Touba. ci wàccaayu màggal Touba 1442 ginnaaw gàddaay gi yonent bi salallaahu alayhi wa sallam war a doon le 6 octobre 2020 ñu ànd ak yéen ci mboolem xibaar nga xam ne mooy bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi dig leen daje incha xibaar sant suñu cadreur di Chérif Gueye. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.